ah non non loolu kañ vraiment c'est aux antipodes li ko tubaab bi di waxe vraiment donc d'une politique de bonne gouvernance hein parce que dama wax ne l'un des points faibles encore du de la gouvernance de Macky Sall justement mooy euh, ci wàllu maanaam reddition des comptes ak redevabilité gis nañu vraiment ci nguuram ay coow yu bëri yu am ci wàllu luubal alalu réew mi te mu jëwul fenn en tout cas bu fekk ci ñi nga xam ne ñoo ànd ak alors euh, mbiru rapport de Euh, cour des comptes gis nga bi mu xam ne euh, euh, génn na mais sénégalais yëpp vraiment dañu dañu dañu dañu dañu choqué woon. que moment bi nga xam ne nit ñi ñu ngi nekkoon ci détresse bu rëy a rëy président ci boppam wax ne nous sommes en guerre vraiment réew mi yëpp taxaw mu jaral mu woote nit ñi ñëw wuyu ko ñu waxtaan et cetera. ñu mobiliser ay fonds yoo xam ne yow ak gar jaaykatu gerte caaf beeg. Mhm. jaay taabal ci mbedd bi ku nekk xëy na def nga ci sa dërëm. Euh, bitim réew aussi ñu dimbali ñu dajale koppar bu mel noonu pour jéem a xëy na euh, dimbali askan wi moom ay nit ñoo xam ne amuñu si benn xalaat lu dul am lu ñu randal lu ñuy def seen poche. loolu dafa da nga bi dafa ko bëgg a affaire waaw non maa ngi ñëw xam nga déjà lu mel noonu ñëpp dañu rafetlu woon le fait que effort de solidarité boobu am ak élan bi nit ñi dajale seen koppar que ñu dem ba ab diir ñu dégg ñu ne xaalis bi kat am na luñ ci luubal lu lu bari. Mm-hmm. premièrement. mbir mi ba mu amee gis nañ ni gouvernement bi daf ko minimiser woon non ci kaw vraiment 1000 milliards naa a parlé de 6 milliards ñu ne ay 0 virgule ak yooyu mais même bu doon 15 sax dafa jaaduwul. Mhm. ñaareel ba gis nañ ne moo ñoom def nañu li ñuy wax boobu politique de communication premier ministre wootee na ñun société civile ba ñu wootee bokk naa ci ñi demoon. Mhm. ba ñu demee la ñu wax. mooy vraiment mbir mi nañ ko leeral parce que fii réew mi toll mënuñu concevoir que am ay nit ñu lubal alorine te dara du leen ci fekk. Mm-hmm. il faut que ici et maintenant. Mm-hmm. mbir mi ñu saytu ko képp koo xam ne jël nga ci loo moomul vraiment nga goxi ko. mais malheureusement. gis nga moom joxoon na assurance te mm-hmm. ñu topp mbir mi vraiment bon mais mbir mi warul demee noonu parce que ñi ay sénégalais lañu dañu am njaboot ak yooyu waruñu leen traîner dans la boue. ñu ne ko soit. mais il faut mbir mi ñu topp ko mu leer. gis bu euh, ñu teg ci quelque temps ministre de la justice. am ay euh, euh, action yoo xam ne def na ko ñu jël dossiers yi rapport yi ñu ko joxoon ñu jébal ko procureur ñu ngi woo ay daal di leen déglu mais ba fii ñuy wax maanaam loolu dañ ko waroon conduire avec célérité pour dalal xelu sénégalais mais man jàpp naa ne mbir moomu xëy na du mujj fen c'est-à-dire que li ci nit ñi yaakaar ci ay daan yoo xam ne dañ leen ko war a teg parce que pour man loolu dama jàpp ne crime la. Mm-hmm. du ci am xëy na ña ñu convoqué dinañu dem ci suuf xëy na ñu remboursé bu fekkoon ne lekk nañu fukk ñu remboursé xëy na ñaar wala ñett en ensuite mbir mi ñu xool lu ñu koy réglé parce que pour l'essentiel ña nga xam ne ñoom ñoo ñoom lañ ci tudd yëpp mais euh, mais te bu ñu doon def xam nañu ñu yi nu ñuy doxee ordonnateur des dépenses kan la. Euh, mais le c'est le ministre. ministre moom mooy nu mu tudd ordinateur des ministre budget boobu bu ñu la ko joxee yow ministre yaay nekk nu mu tudd ordonnateur des dépenses euh, des ordonnateur de dépenses maintenant nag. Euh, di nga am euh, sage wala dage boo xam ne moom mooy xëy na def yenn les opérations courantes mooy mhm. mais yow yaay vraiment donc ordonnateur principal de dépense